jotale nuyoo sëriñ bi présenté dëkk bi loolu mu wax noonu rek la amee ci ndigalu sëriñ Touba le Seex Aliou sancee dëkk bi foofu itam ci wàllu taarix dañu ne da ko boole woon ak buur bu ñuy wax buur siin ku mëndoo feen buur siin amoon ko lum ko dénk fonk gu mu fonkoon ëtt bii ak suuf si ba mu ko ko joxee def ko ni bis boo nammee dellu fa nga jóge woon ca kajoor googu dëkk bi bu ko teg ci loxol kenn nag ma ko delloo wala nga delloo ko sama njaboot bi nga fi bi ma fi bàyyi loolu la ko Buur Siin waxoon waaye mel na ni loolu jotut am ndax xam na digalu sëriñ bi mi ko yebal ci bërëb bii ba joxañ ko fi barke yépp fekk na ko fi njabootam yi tamit ñim fi bàyyi wuutu ko fi nekk di saxal loola ci njaboot googu sëriñ Moodu moom lañ leen di bëggalee wanale ñu xam ni sunu mag ki ci jiitu di sëriñ Ibra Touré mu ngi toog ci sa wet muy doom Serigne muy e, baayam di Serigne Thierno Touré sunu mag Serigne Baddo Touré di doomu Serigne Cheikh Touré jëkk wuutu Cheikh Aliou Touré Serigne Ñomre Touré di xalifa sëriñ daam Touré moom itam mi ngi ci jotaay bi sëriñ Basiiru Touré di sëriñ di doom sëriñ Masamba Touré moom itam mi ngi ci mbooloo mi sëriñ Seex Touré bu moom sëriñ Mor Kumba moom itam mi ngi ci jotaay bi sëriñ Fàllu Touré moom Cheikh Ahmad Bamba Touré ñu koy wax ala Cheikh Touré te sëriñ Abdourahim jiit euh, wuutu ko fi moom itam ak i rakkam ñu ngi ci jotaay bi. kon mbokki taalibe yi fi teew noo leen di ñoom itam di leen siyaar te di leen jaajëfal ci seen taxawaay. di nuyu itam kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoo fi teew tey jii ci ndigalul seex Muhammadul Basir. di leen siyaare lu bare bare bari te di leen ndokkeel di leen massaw yi itam ci coono yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci jamono ji waaye mel na ni itam coono yi mbégte la ndax li nu li ko waral mooy di waajal bis bi nga xamee ni bisub Seyxul Xadim la bi nga xamee ni lépp lu mu am ci loolu la ko amee ah mu mel ni itam lam ca doon jànkonteel ku koy fàttaliku lu jëm ci màggal loo ca sonn doo ko yëg ndax lan ndax na mu ànde woon ak noonu yàlla yooyu kon sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidi El Muxtaar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala yàggal ko fi lool mu mel ni sëriñ bi dafa waxoon ni lil Mustafa yu yujaddidu sunnatawul xarraawi inni ahmadu dama ñëw di beesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi waaye liggéeyal lislaam waaye aar ko mu mel ne loola itam biir nañu ni du jóg ci ak njabootam ndax ñaan na ko taxam nañ ni lépp lu mu ñaan borom bi tabaraka wa taala dana ko may ndax lim ñu ñaanoon ci saahir lépp lañ ca war a egg lépp teg nañ ci suñu ko ko nag bu ne suriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajtahidu dañuy jàpp ni njaboot googu goo xam ne ay mujaddid la ñuy doon ba wa ila yawmi diin duñu jóg di nekk ci biir njabootu xaadimu rasul mu mel ni itam rawatina ko toog ca toogaayam boobu wax nañ ni day tukkeem bii bokk na ca la nga xam ni bëggoon na ko mooy ab xutbaani yu nga xam ni képp ku nekk ak xutbu xaj na boo ko jógee ca yow lay yem mu ni borom bi tabaraka wa taala day bëgg naa sama xilaafa gi sama lal bii képp ku ci toog xutbaani yu googa nga dal di koy am ca waxtu woowa kon mu mel ni loola bokkoon na ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ bi di liggéey mu mel ni loola itam mooy li am ndax Cheikh Sidiyel Muxtaar ni ñu ko gisee muy ñaanal askan bi di wàcceelu ay kamil waxtu wu nekk ñoom sëñ xaar yi ñi xam nañ ci dara bokk na ci ñi ko jiite. mel na ni jëmmam taxul waaye yëg gi mu yëg ni moo war a aar mboolem ku nekk ci kaw suuf loola moo tax muy def loolu te loola darajey mu jaddid la darajey mu darajey xutbu la kon fa tabaarakallahu alhamdulillah bi ñu sunu borom boolee ci njabootu Cheikhuna Cheikhul Khadim kon noo ngi ñaan Cheikh Sidiyel Muxtaar moomu sunu borom yàggal ko fi ba li mu naal ci liggéeyal Serigne Touba lépp sunu borom defal ko ko di nuyu itam jëwrinam Cheikh Mouhamadul Muntaxa di nuyu itam seen jëwrin ju tedd jii di Cheikh Mouhamadul Basir Serigne Modou Mbacke Serigne Khady ak mbooleem ñi nga àndal ñoo ngi leen di jox nuyoo bu sell di ko teg ci seeni loxo ngeen jottu leen ni ko Cheikh Mouhamadul Basir moom mu nga xam ne ci tànneef yooyu ma tudd ni sëriñ bi doon na ko ñaan jàpp nañ ni ci la bokk mu mel ni itam lii nga xam ne moom la taxawal dafay dellu ca bayit wa sëñ bi doon wax ci muqaddimaat ayaa xaadimal muxtaaru laa tansa sahbahu fa man yansahum fal mathu maduhul muqattahu mu wax ni képp kuy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi saxaabaam ya saw tagg man manqué na lu bare bare bare mu mel ni jóg ngeen ngir ñi àndoon ak Serigne Touba yéen ngeen yëkkati leen jox leen seenub cër fàttali ñépp ni ku bëgg kenn bañ laa fàtte àndal ak Serigne Touba kon mu mel ni lii ci liggéey boobu la bokk noo ngi leen ciy jaajëfal di leen ci sant di ñaanal Cheikh Mouhamadul Basir sunu borom kattanal ko ba li mu am li mu bëgg ci liggéeyal yoon wi lépp ngeen ànd ko ak moom suñu borom kattanal leen ba ngeen mën koo eggale ah la ca topp itam ay kaddu la yoo xam ne dañoo jàpp ni ñun murit lu ñuy jaay rek la ca ëpp doole la ca gën a rëy mooy jige Serigne Touba am ngërëmul Serigne Touba. ndax nit ku nekk ba ngay ñëw ci Seexul Xadim indaale nga ab juddu. waaye juddu ba ba nga ñëwee ba àndaat sëñ Touba may na la loo xam ne juddu ba mënu la ko may mhm. kon bu ñuy wax mën nañoo tàmbali ci sëriñ bi mhm. yem rekk ci sëriñ bi mhm. te loola mooy Cheikh Aliou Touré naka la ànde woon ak sëriñ bi ngërëm lu mu am ci sëriñ bi lu mu ko jigee woon loolu rekk la ñu bëgg tënk kon Cheikh yu ture kenn la woon ci murid yi nga xam ni dañoo toppoon Seykul Xadim mu mel ni sëriñ Tuuba itam nanguloon na ko toppam ga lool kon bu ñu ca tuddee lu mel ni liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne defal na ko sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba bi nga xamee ni ñëw na njaarim yàlla dogal mu nekk mu mubaarak muy këram gee am na nu mu bëggoon mu mel ni loolee ba mu koy deflu seexal yu ture la ca doyloo seexal yu ture la ca tànn te eh, ba mu ko koy jox neewoon na ko lii ndigalul sama borom tabaraka wa taala laa ci ànd laa ci am ànd ak itam joxoon ko ci barke loo xam ni gisoon nañ ni na ko bëggee na ko sëñ bi bëgge Cheikh Aliou rek moo ko mane noonu loola itam mooy këram gii tey ci njaareem ñu xam wax nañ ni sëñ bi dëkk na fa diir boo xam ni li ko wër guddul ñu wax ni naari gànnaar yi buñ fa masaane ñëw buñ waree ci seeni gileem dañuy xam li nekk ci biir kër gi léeg-léeg sax am fu ko boo fa taxawee damay xam li nekk ci biir kër yi kër gi sëriñ bi woolu Cheikh Aliou Touré ni ko kër gii dama bëgg nga defaral ma ko ba ko war gileem du xam lu nekk ci biir Cheikh Aliou Touré loola moo war a liggéey bi sëriñ si doon junj léegi xer ya ko doon defar fii lañ ko doon jëlee ñu wax ni garab gi ñuy dagg dafay nekk garab goo xam ne dafay am ñaari meetar ak lu topp nee na bu ñu ko daaneelee juróomi tëll lañ koy def mhm. yooyu moo doonoon xer ya mhm. yóbbu ko njaareem defar kër ga ba sëriñ bi ba mel na ko sëriñ bi bëggee woon kon loolu bokk na ci liggéey yu mag yi nga xam ni sëriñ Aliou Touré defar nga ko sëriñ Touba loola itam firnde jañu ca amaat mooy sëriñ Abdoul Ahad Mbacke jëlee nañ ci aw làmmiñam mu nettali loolu wax nañ ni keroog ba nga xamee ni aaya na ku yéeg ci jumaa yi Touba ji ni bu ci kenn yëgati ba mu demee Touba belal ba dajale eh, dongo yi di waxtaan ak ñoom ba tudd loolu daf ni leen sëriñ bi day bi mu nekkee njaareem dafa wóolu sëriñ Aliou ni ko dama bëgg nga sama kër gi ba ku nekk ci biti du xam ci lu du xam lu nekk ci biir mu ne leen sëriñ Aliou Touré defal ko ko ba mu mel noona ne ne bi ñu demee bay liggéeyaat jumaa yi njaareem ji bu ñuy yëg ci kaw dañuy tiim kër gi mu woowaat sëñ Aliou ne ko diggante néeg bu ne ak morom ja dama bëgg nga defal ma fi am mbaar ba ku jëm ci ne jël jóge ca nee bee jëm ca bee kenn du la gis nee na sëriñ Aliou defalaat ko ko noonu sëñ Ablaat mooy nettali mu daal ni nag mag mu suturaale noonu boppam kenn warta yéeg ci kaw jumaa ji di ko tiim kon loola itam firnde la ca waaye itam bokkoon na ci mag yi murid yi nga xam ne ñoo ko waroon ci njëriñ ba tey boo demee kër googa ma nga fa mook Seex Ibra ñoom la féetale woon boo demee ñoo bokk wàllu bu ñu dëkkee ci wàllu raay ba ba léegi kër Seex yu ma nga fa booba itam mel na ni sëriñ bi daana ko soxla lu baree baree bari mooy agsi ci moom sëriñ Saliou bi ñu ko mujjee siyaare maag sëriñ Mohamed mii keroog sëñ Moussa ñun dafa yëkkati baraada bi di ñu xelil mu ne ko bàyyil ma xelil ñii samay doom lañ mm-hmm. dañ ñu seen maam day ku safoon sëriñ bi la mm-hmm. ni sëriñ bi daana bàyyi ba mu guddi mu woolu ko mhm. nee na bu ñëwee day boof ci kanamam sëriñ bi di bind mhm. ba nee na noddu moo leen fay jëlee mhm. loolu sëriñ Saliou daan ko def kon kooku kooku mooy Cheikh Aliou Touré waaye itam ca liggéey yam ko daan sant bokk na ca bu ma saana ami gan daana leen yabal foofu ci kër Cheikh Aliou Touré ñu dem fa ngir Cheikh Aliou taxaw leen bala ca mujj amoon na ay naar yoo xam ne am na lu mu leen waroon a jox ci alal ba mu ñëwee def leen a yabal ci Seex Aliyu wax ndaw la ni ko boo demee neen Sëriñ Aliyu ñii na ma leen joxal nangam ci xaalisu ngordu Sëriñ Aliyu yëkkati loola jox leen yëkkati waat lu nu toll ni maa ko barkeeroo ci ndigal li wax nañ loola ba muy dox ba egg ci sëriñ bi ba ko sëriñ bi déggee bis dafa ñëw ci sëñ bi sëñ bi ni ko jàmbaar noonu lay mel day liggéeyi lu te di ko joxe te yàlla tax kon daal ci gàttal ngir xamle Cheikh Aliou Touré eh, kooku mooy Cheikh Aliou Touré waaye itam wax ca ni mbokki seexam yi ànd bu rafet bu mu àndoon ak ñoom sëñ Mouhamed mi bi muy présenté léegi dégg ngeen ñi fi tudd ñëpp yee ku ko xam sëñ Aliou la ko firil wala Cheikh Ibra Fall firil la ko noona itam fa jaar ak Cheikh Issa Dieng mhm. jëfandikoo na ak moom ci baati juru Serigne Mbacke Dieng su ngeen ko gisee mook caatum Serigne Aliou Touré ñoo bokk jenn nday mhm. te bi ko Serigne bi di jël di jox Cheikh Aliou Touré booba ci kër Cheikh Issa la ko jëlee mhm. loola itam di mbirum baatin moo xam ne doxale na ko ak ñoom kon daal moom Cheikh sëpp Serigne Touba boole na leen ci saahir waaye itam boole na leen ci baatin kon noo ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mooy defarkat bi mooy defarkat bi mooy ki doon rasulullahi mooy ki doy yàlla doy rasulullahi sallallahu alayhi moo ci yàlla jeex tàkk ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw àddina nag ngir dimbale jaam foo ko mën si Ahmad Bamba waaye sëñ Modou Mbacke si yaa ngi nga àndal ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen sant ngir lan taxawaay bi ngeen taxaw mu bokk ca taxawaay ya seen maam ya ak wayjur ya taxawoon ngir liggéeyal Serigne Touba lañu doon lépp ñu jaay ko jënde ko taalibe te ak taalibe rek mooy li am solo tijaatul xilmi tabóoru wala tabóoru tijaatul adab téere yi dañ ne soo jaayee xam-xam mu lambu waaye soo jaayee teggin du lambu te teggin mooy ak taalibe bi kon si may njëkk tàmbalee mooy fi sëñ Abdoulaye daaneele ci lim nekke woon ak ñu mbokkal sëñ Touba sëñ Cheikh Touré moom la tudde woon sëriñ bu mag bi moo di taawam mu tudde ko xaadimu rasulilah sallallahu alayhi wa sallam yaakaar sëñ Mor Kumba Touré mu tudde ko sëñ Mor Kumba Kan sëñ dam Touré mu tudde ko sëñ dam Abdourahmane do sëriñ Sidi Mokhtar Touré mu tudde ko sëriñ mam Cheikh Anta Mbakke borom Daaru salam sëriñ Thierno Mbakke mu tudde ko mam Thierno Ibra fati ndamal Daaru sëriñ ali Fatim Touré mu tudde ko kenn ci mbokam sëriñ Badou Touré momi tam mu tudde ko kenn ci ay sëñ Abdourahmane tudde mu tudde ko sëñ Abdou mu tudde ko sëñ Abdou Karim mu mag sëñ Daala Touré moom it mu tudde ko sëriñ Cheikh sëñ Cheikh Touré mu tudde ko sëriñ Touba ba tey moom Xaadimu Rasuul sëñ Mamadou mu tudde ko sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa sëñ Abdourahim sëriñ ak Cheikh Ibra Touré sëñ Mbacke Touré mu tuddee ko Serigne Massamba Mbacke Mbacke am da ceebo ak keneen ku tuddee sëñ Ahmadou Ndumbe Mbacke moo leen kon kàngam yi bokkaloon Serigne Touba ñëpp tudde na leen ay doom kooku man nañ cee xame ne jikkoom mooy jikko ju rafet jikkoom ju rafet jooju nga xaye moom la sun borom def ci moom te jikko ju ci la yàlla tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala ba mu jógee rek moom Seex Aliyu Touré la te sun borom moo ne wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuh inna llaaha yuhibbul mutawakkiliin saa soo tegee nag sa tànk ci darajey wakiirlu dana la yóbbu ci darajey am ngërëmal yàlla ndax ngërëmal yàlla mooy meññatum wakiirlu ngërëmal yàlla mooy meññatum wakiirlu te itam laa imaana li man laa tawakkalu lahu gëm yàlla du man mukk te àndul ak wakiirlu gëm yàlla du man mukk te àndul ak nag ba mu jógee rek la wakiirlu wakiirlu nag dafa am ruux ndax lu yàlla bindu lu ne am nga ruux ruuxu tawakkul nag ñett la tawakkuli fii waajibil xaqi wa waajibul xalqi wa waajibu nafsi da ngay wakkiirlu li war ci sa diggante ak yàlla sa boroom te loola mooy jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun suñu alliyu ku sonnoon la ci jaamu yàlla tey xam nag ñu koy jaamoo ba noppi gannaaw ba mu xamee nañ koy jaamoo ndax bala ngaa jaamu yàlla dangaa war a xam ni ñu war a jaamoo yàlla ba noppi kon ku ca sonnoon la li ko waroon ci digganteem ak yàlla boroomam lépp da koo def waaye li ko war ci digganteem ak doomu aadama yépp da koo def ba mu mat ndax sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na teggin sa diggante nee na teggin ñaari xaaj la teggin sa diggante ak yàlla sa borom ak teggin sa diggante sa moromum jàmm teggin sa diggante ak yàlla sa borom sëñ Tuubaa nee na ñeenti xaaj la topp ndigalal yàlla di ko tereem sant sant ak xéewalam balaa bu la teg nga muñ ko tegil sa diggante ak sa moromam jaam takrimu mukaramin ki yàlla teral teral ko wasadraj mustajridin ki yàlla jay nga jay ko watar ko xayri ila ali kim ba ci diggante bi ni ko yàlla def nga def ko ni nit ku ne na ko yàlla def soo ko na defee wàccoog moom cheikh ali touré nag kenn ku ne na ko yàlla def neex na ko bi ci des nag mooy tawakkul fii wajibi nafsi tawakkul fii wajibil xaq jafe na tawakkul fii wajibil xalq jafe na waaye li ñu jafe lépp daa mel ne tawakkul fii wajibi nafsi nag moo ko gën a jafe li war sa diggante ak sa jëmmi bopp ndax man mbay ngiraan moom sëñ Mor Mbay Siis daa faral di wax naan koo xaye bëggoon nga maa teg baat boo xam ne du baat bu rafet bu may jam lay doon buntu ba nga war a mën a jaar ba teg ma ko maa koy ubbil saa bopp nan laa koy ubbee daay dem fu ma warta dem wala ma wax lu ma warta wax mbaa ma jëf lu ma warta jëf kon nit ku yiw day sëgi boppam du jëf mukk lu mu warta jëf du wax mukk lu mu warta wax waaye du dem mukk fu mu ba wàll na nii tey xool leen ñu ngi nii toog wër nu kenn ku ci nekk la nga war a def rek ngay def la nga war a wax ngay wax fa nga war a jëmit ngay jëm kon waxtaan wi mën naa bañ a gudd liñ ciy teg mooy tuuti ci ay ngërëm yoo xam ne sëñ Tuba gërëm Cheikh Aliou Touré ñu tudd ci tuuti tuuti ab coom te joxe kàddu tanbihun li tanbi kula man salaha amruhu ala say ala anna sayqul farid xaalal muridu شيخ علي توي يا حلي اهلا باني اشتريتك لك من ربك الكريم المكرم الايمان والاسلام والاحسان وداوم عليها فاليوم ملكتها تمليكا دائما مكو بس دغ لول ليمان اك الاسلام اك الاحسان كو خاي جندي nga ko ba mom ko seigne touba bindu ko wax la ko jox la ko koku موي cheikh ali touré mom gu sax te lolu nak yakarna ne موي adina mooy addina mooy alaxira dal dina ko ihlam anna allah tabaraka wa taala kafaaka larara jawarihika sabhata fi daarini wa anna allaha tabaraka wa taala xuliqa abwaaba niiraani wala taftahu laka abadan wa anna allaha tabaraka wa taala haala baynika wa bayna kulli sijnin wa anna allaha tabaraka wa taala najjaaka min ataqallufi an duxuli fi safinati al iman yowma alqiyamati wa anna laa tabaraka wa taala fataha laka baabal jannati samaniyata laa taxluqu ila baxda duxoolika anta xaliyun wa man maxaka jërul lee di ko jox di tëyale ca des daa fab léppam léppam jël ko sëñ bi jëmi boppam alalam dooleem xam-xamam njabootam léppam léppam la boole yëkkati ko jébbal ko Serigne Touba xaadim rasulullahi sallallahu yaakaari jaam liggéey bi ñuy wax ci kër gi di kërug njaarim gi bi nga xamee ne Cheikh Aliou ture mboolem njabootu sëñ Tuubaa gépp wax nañ ne Cheikh Aliou Touré lañ yaakaar ne man na ko ni ko bëggee yow Xaadimu Rasuul mu liggéey ko ba liggéey bi àgg <coughs> mu defaat barrière boo xam ne doo mën a sës ci seng bi yaakaar naa xanaa léegi la bi ñu miiree kër gi dindi barrière bi waaye mboolem ñu fi nekkoon ñëpp gis nañ barrière bi nga xay matoon na ñaari mètre diggante seng bi ak barrière bi Cheikh Aliou ture def ko nga xay sëñ Tuubaa da daan jaar ci diggante seng bi ak barrière bi nit ñi jàkkaarloog moom muy waxtaan ak ñoom waaye kenn du mën a àgg ci moom waaye ñi koy gis bu di leen gis bi mu àggee ba Serigne Aliou ture ñëw wax ko Serigne Touba Serigne Touba ne ko nañ ànd dem ma seet liggéey bi ànd ak moom ba wër kër Serigne Touba gi wër nañ ko lu ma ñetti yoon loolu di wër kër bu guddi gàmmu ñëwee kon kii mooy Cheikh yi Touré kon gannaaw euh, ab karawaan la dañoo jóg ngir liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bu rëy bi mu liggéey woon ci géej gi mhm. te moom rek moo fa nekkoon la sëñ Abdoulaye doon wax naan sëñ Touba fa mu doon ñaari xéewal ku ne ami nekku fa kenn du ne ba sëñ Touba xare ci alasaamaam des de goo ko xare bu ne de mën nga de diw ca la des waaye sëñ Touba moom ba muy xare moom rek a dem ne tok len ma dem liggey suma ñewé lépp ñëpp lek waaye lolu fekk na seigne touba moko bind ci xasida ak alhamdullilah ala xamiisi almusibi sukuki wa dumuusi so demé ma ngay na naa jeytoo wax bii la dal xaamuusi bil Mustafa wa hurmatin hurmati jep seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngeen ba teras bi tam ñu ngi len ni beral seen tiant ndax teras day lu am doole ci aduna bi fi ni lépp lépp lu jàll ci aduna bi ñoko jàllale gis nañ seen taxawaay nag ci Serigne Touba ak caravane bi ñun ñoo ngi koy topp depuis lu mat juróomi at wala juróom-ñetti at yoo xam ne at mu jot dañ koy suivre léegi nag bu yàlla dogalee ñu dem ba gën tànnal seen bopp boole ci Cheikh Aliou Touré loolu ñun sant nañ ci waaye taalibe yi sant nañ ci njaboot gépp sant nañ ci ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci dara darajee Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci jataay bu tedd bii ci barab bu tedd bii ci turu Sëriñ Tubaa Seex Sidil Muxtaar ak jëwriñam yi nga xam ne ñom la tek ci kanamu njabot gi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa sayyid al Basir ak cheikh mohammedul Basir ibn Serigne Touba Cheikh abdul Khadir ak Serigne abdul Ahad ibn cheikh Ahmadou mbake gayne Fatma ñu bolé ñu ak Serigne Modou mbake si muy ñi karawan bi ñi ngi yëkkati nuyoo diko di jotal. sëriñ Abdourahim ak njabootuk sëriñ Aliou Touré gépp ak nu ci nit njabootoo ci moom ni ñu ko xamee nit ku baax li sëriñ bi di wax ci alwaladu waladaani waladu sulbi wa waladul xalb waladu sulbi yarisul maal waladul xalbi yarisul xaal kon nu nit askanoo ci sëriñ Aliou rek ñu ngi koy jotal nuyóob sëriñ boobu akuk cantam eh, di am mbégte bu baax ndax dafa mel ne li tax sëriñ bi di yónnee dañ koo gis fii li ma bëgg a wax foofu mooy kilifa yii ma tudd muy jëwriñ yi bi ñu xalaatee karawaan bi te di ko leeral bañ ca junjee la wax mooy fëggewaat gili ni sëñ tubaay yi kon taali sëñ tubaay yi gën koo soññaat daa mel ne fii nag alhamdulilah ndax li gën a itteel sëriñ bi moy njabot gi bolo te duñ waxe fi kon njabot gi bolo mom mi ngi fi bu wéré wéré wér kon mom ni mu gisa yoni moy feggé wat gili nit eh, tali seigne touba yi eh, naka nonu jokkal ko bokkuk l'islam gi ci fuñ dem te ñu fa lool yi eh, kon ñi sant bu baax bi nga xamé né sëriñ bi li tax mu yeble fekk nañ ko ci barab bi lolu sant nañ ci bu baax a baax te ne sëriñ Modou bi ko war a jotal bu ko jotalee loola dana dana fés ndax da koo ñor lool da koo ñor ci njaboot gi àndaat nekk benn ndax moom mi jël itteem jëme ko ci woote diine ji l'islam bi mu boole leen muy benn kon kuy woote diine ji njaboot gi taxul ñuy wax loolu it mooy liggéeyub l'islam waaye dafa ñoroon Sëriñ Tuubaa bam di ko ñaan bennoo yaa rabbi ij'alil muridiina maa fi isnika al asini wa samla ijmaa moo tax kon fu ñu dem te fekk ko fa loolu dañ cey sant bu baax a baax euh, sëriñ bi dafay wax ne fu ñu fi dem nañ leen xamal ne su suñ boroom maye woon jenn jëm mu mën a fekk ñëpp kenn ku ne fa mu nekk saafonteeg yow soññ la moo koy defal boppam sëriñ bi jaral na ko loolu waaye bi ko jenn jëm mënut it mu nar at mu nekk mu yebal mbooloo ñu jaar ci ak wet suñu demee mbooleem fu ñu fa xamoon tamit barabu sëriñ bi ñu demal ko fa nuyul ko njaboot ga saafoonteeg ñoom xamal leen ne kat ñëw gii ay tànkama ay yéenee ma suñu fa fekkutoon lool sax te fekk fa taalub lislaam ku ko mën a taal nañ ko jokkal bokk googee kon sëriñ bi foofu la nekk soññe lool ci màggal gi ndax màggal gi dafa mel ne ci ni ci sëriñ bi wax fukk ak juróom-ñett ci safar mooy bis bi nga xam ne li mu bëgg lépp taxoon koy sonn ku ko topp lay faj sa aajo lépp ci bis boobu la ko suñu borom defal fukk ak juróom-ñett ci safar daf cee mas di waxtaan ak sëñ Amsatu Jaxate di ko wax liggéey ba ni mu mettee woon ak coono yi wax ko ne ko fukk ak juróom-ñett ci safar day tubaab yi sax dañ koo xamoon neena barap yiñ ko daan teg ak coono yiñ ko daan teg su bis bi masaana dellu si danañ ko waajalaat lu barab ba xat-xat ñu gën koo xatal lu mu taq-taq ñu gën koo lu mu xeeñ-xeeñ ñu yokk ko luñ ko daan teg ci metit danañ ko yokk fukk ak juróom-ñett ci safar waaye boromam ci boppam tabaraka wa taala daana ko teg ay nattu ci jëmmam ji suñu borom daana yokk nattu yi ful ko fukki yoon ci fukk ak juróom-ñett ci safar ñëwee ba ni mu ko waxee sëñ am satu mu ne ko bi mu ñëwee ci njaareem nag mu xëy benn bis fukk ak juróom-ñett safar di waajal nattu yooyu am ci lu mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam sangam ba dikkal ko indil ko jaajëfam ak jaajëfali boroomam xamal ko ne ko li taxoon ngay sonn lépp lépp lépp lépp doon ko bëgg dee si la ko bëggal sa borom defal na la ko bis ni ki tey nga xam ne bisub keroog bu ca jeexaloon suñ borom dolliwul sëñ tubaa dara aajo yi sëñ tubaa ak mboolem ko aj ci moom aajo yëpp faju woon na ba noppi waaye suñu borom nag yemut ca loola yéen salaa salaam daf caa tegal ne ko lii mu la defal ren nag te mooy li la taxoon a jóg te aaj ji faju ba faw nekk ca saa bu bis bi dellu te sa borom dana ko fulaat fukki yoon joxaat la ko te ñun kere ca bis bu njëkk ba rek aajo ja faju woon na loolu nag léeg-léeg ma wax ko ne bu fekkente ne sëriñ bi bi muy liggéey nattu yi saa bu bis bi dellusee dañ koy ful fukki yoon tegaat ko ko mu yanu ko bi mu demee ba jeex ba ñu di ko fay fay ko lépp ba mu àggal saa bu bis bi dellu ñu fulaat ko fukki yoon joxaat ko mbokk yi kon ñu nit nañ jàng màggal luñ màggale ren bu déwénee buñ màggalewut fukkam màggalaguñ ndax sëriñ bi ak boromam noonu lañ doon jëflante moo sëriñ tuba cheikh Sidil Muxtaar soññee ci bu baax a baax kilifa yépp xam nañu ne ñi ngi ci di ko waajal di ko soññee waaye lu ñu ko waajal du doy lu ko soññee du doy waajtaay woowu luñ ko gën a waajal ci alquran ji ni nga xamee ne eh, noonu la ko kilifa yi daan santaanee wàccee kaamil yu baree bari def ko addiyee sëñ tubaa ñaanal ko ci moom sëñ Tuubaa Seex Sidil Muxtaar ñaanal ci yoon wi yëpp ñaanal ci diine ji waajal ndaw ñi ci jikko yi ak melokaan yi ba ku ciy dem Tuubaa mel ne àjjana nga jëm jàpp ci sa xol ne sëñ touba nga fay fekki tan ma nga taxaw di la xol xanaa ma nga taxaw di la xol ji mo dess waye ñepp japp nañ xam nañ sëñ touba lañ fay fekki lolu sëriñ bi mu ne mu ngi ci soññeelu bu baaxa baaxa baaxa baax euh baax li ñu waxoon ci ne lim doon wax dañ ko ci fekk xam ngeen ne kaddom ñepp degg nañ ko muy delu ci barap yi dekkalat ko kon ko xamne bi ba bi santane loola fekk ne yow sa barap kon alhamdulilah alhamdulilah ndax yaakaar naa barab boo xam ne sëriñ Aliou Touré fa nekkoon di fa liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéey fa liggéey bu réy bii ñu wax buur sax xam la ne te barab ba banaan boo koy delloo ñu delloo ma ko defe naa ne nag lu sant sant turi dañ ko téye loolu moom xam naa ne alhamdulilah kon wax dëgg yàlla am nañu mbégte bu baax lii ñu fi jot a leeral it ak luñu hamon xamoon xamoon njàmbaaru sëñ àll yu am na lu ca dolliku teewul nag xam naa ndekete cure ji tax na am na yeneen yuñ denc gis naa bi góor ay wax sax sëñ sëñ nii koy xoolaat bu baax ndax bañ mu wax waaye ba boo ngeen xam ne di ngeen amaat gan nag di ngeen amaat gan bég nañ bu baax ñaanal sëñ Abdourahim suñu borom yokk fan wi ak wér gi boole njaboot gi ci gannaawam te loolee nga xam ne noonu la sëriñ bi ànde woo sëriñ Aliou ànde woon ak sëriñ bi loola suñ borom saxal ko ci njaboot gi ba faw mooy sax nekk dëgg dëgg ay jullit nekk dëgg dëgg ay murit dund ci dee ci dekk ci barki sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gi